ay ca sama gaay yi wari wa dem na kan waxi mag dem dañ tàlli lakk jëm ko ni mbag war mbaam li waaye doon jaay de lamb rek mbaamu leer yéen ñi nga xamante ni tey yéen yéen a safoo di topp télé bi nga xamante ni tey moom mooy télévision bu mag bi di Baobab TV télé bi nga xamante ni saa su nekk rek waxtu wu ne jamono ju ne ci li nga xamante ni tey moom ngeen di bëgg ci lay dox saa ne tey nag ñu amal leen programme bi nga xamante ni tey yéen a ko safoo topp ko muy ataaya bi waaye ndaw lan mooy taxawaayam tamit ci li nga xamante ni tey moom mooy réewam muy programme bu am solo bi nga xamante ni tey gis ngeen ñu yaay ñi nga xamante ni ñoom laa ko war a sekkat Serigne Mouhamad Mbow nga am fële nga xamante ni tey mooy Babacar Senghor ñu war a sekk waxtaan bi nga xamante ni tey war nañ ko mën a waxtaanee xool li nga xamante ni tey moom mooy solution bi waaye waxtaanee li nga xamante ni tey moom la ndaw ñi war a dundee kon su ko defee rek damay bàyyi suma gan ñi ñu daal di nuyoo ak ñi nga xamante ni tey moom moo leen di seetaan su ko defee rek ñu daal di continuer ci li nga xamante ni tey moom mooy programme bi waaye waxoon naa leen ne cin bokkut safin lay doon ak Baobab TV saa su ne rek fu ngeen ñuy foogee di bëgg ñu fay demee rek fa leen li demee xool li nga xamante ni tey moom la askan bi soxla ñu ñëwal leen ko kon gaay bu leen di fàtte di subscribe ndax loolu moo ñuy yokk toole su ko defee rek fu nekk rek si àdduna dinañ fa mënti dem euh, di leen indi li nga xamante ni tey moom ngeen gën a soxla ci li nga xamante ni tey moom mooy seeni programme kon gars yi ñu jox ki nga xamante ni tey moom mooy Mouhamed Mbow mu daal di nuyu askan bi nga xamante ni tey ñoom ñoo koy seetaan su ko defee rek ñu daal di continuer ci ki nga xamante ni tey moom mooy Babacar Senghor Mouhamed Mbow ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay fay liggéeyam so waaw di nuyu ni nga wax asalaamaaleykum wa mboolu àdduna bi waaw ñi nga xam ne safoo nañ di seetaan Baobab TV di am kontaante ak mbégte si dalal bi ñu dalal tey jox ñu opportunité bi pour ñu ñëw toog tey waxtaan si taxawaayu ndaw si bi si réewam ñu am kontaante lool pour ñëw teew teewaay fii di wax sant yàlla bu bëri ñu ngi wax alhamdulilahi rabbi alamin asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. su ko defee rek ah, da may ah, Ah, safal suma may ak tamit ki nga xamanteni tay mom moy babakar Senghor waaye nekkal ma ci brada bi mu don danan kuddu fatlin kon daf ñuy nuyu rek suko defé ñu daal di continuer ci li nga xamanteni tay mom moy programme babakar ñu ngi lay nuyu. Ah, ma ngi lay fay assalamu alaykum Gambia maa ngi nuyu bepp goor jigen mag ak ndaw fu way mu na ne ci Gambia rek ma ngi laa nuyu. di sargal tamit Baobab TV télé bu mag bi nga xam ni nii xam nga ñu ci fi tay macha allah ak waxtaan bu am solo bu ñu war a waxtaan bi pour askan bi yëpp ah, ñi ngay wax ne ñëpp daal nañ seentu daal ah, luy jëm kanam daal macha allah. incha allah mu nekk lu am solo ah, li nga xamante ni tey yëkkati na ko waaye ba tey rek ñu joxale ki nga xamante ni tey moom mooy Mouhamed Mbow pour ñu tàmbalee ci moom mun naa am balaa ñoo toon am li nga xamante ni tey moo ñuy fekk ci si programme bi muy ataaya bu yànj bi nga xamante ni tey yéen a ko gis. mu nekk lu am solo tey suñ bëggoon a xam tey kan mooy Mouhamed Mbow. waaw nañ am kontante pour tontu question boobu. Mouhamed benn ndaw la dëkk fii Gambia juddoo fi yaroo fi màggee fi. jàngee fii ba pare màggee fi. jéem a fas yéene taxaw pour jëmale réew mi. bokk suñu nga dinañ contribute si développement développement réew mi. Mouhamed mu ngi juddoo si dëkk bu ñuy wax fii Sinthiou Balia. waaw fa la si wajuram bu gor di oustaz ñu ko xamee woon si oustaz mbaw mhm. wa yal na ko yàlla ya xare aljana suuf sedd ci kom wa ñu ñaanal bépp aji kare tamit yalla ya xare aljana e eh, leral seen kanam barkel sen gannaaw wa ala kulli hal suñu wajur bu gor lañ gane aduna fekk ko si muy yëngu ci affaire diine mhm. mu yar ñu si tagal ñu si bañ mag mhm. mu duggal ñu daara ci lool lañ nekkon di dem daara fa joggé afta ma xamee ne léegi daal ndaw dafa war a am métier si la ñu jël dugal ñu si métier ñaw si loolu la ñuy yëngu ba tey alhamdulilah ñu ngi siy yëngu bu baax ñu si siy xuus ñu ngi beru 2022 ba booba ba tey tamit ñu ngi góor góorlu si wàllum métier mi di jéem fas yeneen rek góorgóorlu incha allah nga xam ne alxuraan leen doon jàng hmm. bu ñu fa dem nañ si arabic school bi hmm. graduate from grade 12 macha allah ñu jógee waat foofu demaat si english school bi def nañ fa ñaari at waaye booba yëpp ñu ngi ko booleeg njàngam métier mi hmm. waaw nga xam ne ndaw moom jàng rek la fi am pour jë su bëggee pour réew mu jëm kanam daal foog mu jàng benn mu jàng lu nga xam ne mooy xam-xam wala mu jàng métier daal ñaari yëpp boo si def rek baax na so Mohamed daal mu ngi noonu incha allah macha allah ah, dafa mel ni rek li nga xamante ni tey moom la ñu bëgg a waxtaanee soo xoolee bu baax a baax dafa mel ni tey moom moo fi ñëw teew. waaw dëgg nag naka la ndaw war a dundee ci li nga xamante ni tey moom mooy réewam. waaye ñu gis ki nga xamante ni tey xale la. Mm-hmm. waaye mu juddu fekk ay wayjuram mm-hmm. nekk di yëngu ci dara. mu xam ni ñiikat kat ci lii lañ nekk. man ñu tàggat ma ci loolu. waaye duma toog. dem naa daara. jugee naa fa ñëw naa am li nga xamante ni tey moom mooy métier waaye tey euh, Mouhamed mhm. euh, suñ amee beneen laaj bi nga xamante ni tey bëgg neen sax ñu waxtaanee ko tey mooy li nga xamante ni tey moom moo nekk di euh, di dox ci réew mi mhm. maanaam ndaw ñi naka nga foog ne tey moom leen war a mën a dundee tey ba réew mi romb fi nga xamante ni tey moom la nekk nii waaw dañu kontaan si tontu si laaj boobu mhm. ndaw pour mu mën a dem li si ñëk yar parce que yar dafa am dara muntu dem dal without yar oh, moo tax eh, woykat bi mu ne mbax ak yaru lum la mayut du la ko ne mbax ak yaru lu lum la mayut du la ko xañ ak so nangulee nit rek nangu te nangul nit bokku na ci nga am yar mhm. So ndaw dañ ko wara tagat ci bir kërëm ci biir kër gi la tàggat bi war a commencé nga xam ne dañ koy yar si yoon teg ko si siraatal mustaqim bu nga xam ne kii eh, ku bëgg dara foog ñu am fuñ la teg mhm. soo yar boobu noonu su fa jógee mhm. moo xam Ida dem na si school wala daara mhm. ñu gën a continuer waat yar boobu noonu eh, su yar boobu noonu jàllee rek leneen loo bugg a def si ndaw mi pour mu nekk ku nga xam ne dina nekk ku responsible in the future in a dina yomb waaye ndaw su amut yar soo buggee ne di nga bugga pour mu contribute pour développement si réew mi dafay jafe so moo tax yar bi dafa gën a am solo nga xam ne mooy foundation bi su yar bi amee nga xam ne jàng ñëw ndaw soo jàngee li nga bëgg ba pare nga xam li nga bëgg soo xamee li nga bëgg pour nga taxaw si pour jot si dafay yomb waaye tey ndaw yu bëri li ñu sonal xamuñ fu ñuy teg suñu tànk te mbir su da ngay xam li nga bëgg nga jóg pour dox si waaye soo xamul li nga bëgg ku nga xam ne képp ku ñëw rek daf lay këf te ndaw soo amul li nga bëggu te xamoo fi ngay teg sa tànk nit yi dañ lay nekk di la yuus moo tax nga gis ndaw yu bëri tey si dëkk bi eh, ku jóg yuus leen nga dem ba si biir ne la tegal la nii eh, na la nii ak nii la fekk na ne du noonu Adi en yo nga dem be tok gisal ne sa bopp ki daf mo doon yus te xanga ne loolu amul njëriñ lu ko waral ñaka jang la ak ñaka xam fi ngay tek sa tank te lolu tamit dafa aw am solo trop pour ñu taxaw si macha allah mu nekk lu am solo li nga xamanteni tay wax nga ko waaye ah, mohammed ah, lan nga fokk ne tay buñ ci duggi wala sax ñu laal ci astout tuut dinañu dimbalé ci li nga xamanteni tay mom moy suñuy ndaw ci ni nga xamanteni tay mom nga ko waxé tagat bi yar bi waaw lan nga foog ne tey tey buñ ci duggee tey dinañu dimbale as tuut maanaam ci ci nuy ndaw. ah yi tey lépp daal soo ko seetee ba seet mm-hmm. ndaw yi nangatuñoo jàng mm-hmm. te nangatuñoo lu lu métti mm-hmm. parce que dañ bëgg lu yomb. te mbir mi moom dafa bëgg a dox toog muy dox te loolu jëmalewul mbir kanam. Ah, bu njëkk ba da gis ndaw su tolloo si jàng dafay jàng. tolloo si ut métier mu dem uti mucc waye tay xale bu ndaw fay juddu toll si njang mu bay fa njang mu ne fay dem outi khalis du dem. ta khalis nak mo ñuy duggal ci lu bari. waaw so mbir bala nga si duggu dang koy xam. dang koy maîtriser bu baax. waaw e, suñ la jangalé mm. tek la ci yoon. Mm. xam mm. li nga bëgg. top ci ba paré yar bi. warta em rek ci kër gi. tay family yu bari Togun waxtaan ak seen njaboot di xam seen doom lan mooy seen bëgg-bëgg ak lan la nga xam ne suñ ko si dugalee dina gis njëriñ ine fiicoo xale yi léegi seen parents yi amatuñ seen time bu bëri nit ki wow. dafa war a dem ba ci toog di waxtaan ak njabootam ngir muy xam moom lim bëgg wow. ak lim bañ wow. ba tax moom mu mën ko ci dimbale dimbale si tey moom la bëgg mu la bëgg waaye loolu moo nekk problème bi tey ndaw yu bëri seen parents yi xamuñ si luñ nekk di yëngatu. Hmm. ak lan mooy seen bëgg-bëgg. te laajteetuñ ndaw yi tamit du ñuy laajte mag yi. dañuy tëb rek ne dañuy def seen xalaati bopp. ñu ne ku la mag ëpp lay sagar. Hmm. xale xale ñu ne su loxoom setee hmm. mën a bokk ak ak mag yi ndab. waaw c'est xale yi tey dañuy wax ne man suma magi bopp la lu ma neex lay def lu ñëw suma xel ma def ko te am na yoo xam ne dafa baax nga ci diisoo ak mag mu mun la si xalal mu wax la comme njëriñ yeeg loraange yu soo mën a xam nga xam ne addi en bés boo si demee bés soobu rek di nga xam li nga si doxalee ba di nga xam nooy si bàyyi sa xel waaye tey ndaw yi bàyyi déglootuñ mag yi mag yi tamit tooguñ oo seen njaboot waxtaan ak ñoom te mun na xam su luñ bëgg dimbale leen si loolu moo nekk lu nga xam ne dafa sonal ñu ndaw ñu bëri ba pare leneen tam mu ngi ci eh, waajur yu bëri tey suñ société bi concept buñ eh, buñ am mooy ne ndaw balaa ngaa tekki rek foog nga génn. foog nga génn. waaw. Ah, maanaam. Eh, foog nañ ne daal bëri daal. bokk na ci luy indi gàllankoor te xamuloo sa doom jooju fi nga koy génne waaw fan la war a doon. war a doon ak ban place nga ko war a yóbbu. a doon waaw dafa am suñ benn mag daara mm-hmm. mu ne dafay wax ne kilifa yi léegi waaw yaratuñ dañuy yefal dañuy yefal <laughs> maanaam mel ni ku yor sab kuy si waaw xam nga xale boo jox ko xont mu lekk ba suur waaw <laughs> naan ba màndi jeex na toppatoowuloo toppatoo lijjantewuloo si lu muy def baax naam baaxut mm-hmm. te mag yu njëkk ya dañ daan yar xale dañ yar mm-hmm. seeni njoboot eh, xamee ràññale leen lu baax ak lu bon waaye tey waajur yu bari dem nañ ne ba suñ xale seen xale mm-hmm. lépp luñ bugg rek ñu lijjantewuñ baax na wala baaxul dañuy fexe rek ñoom seen doom mu am ko mm-hmm. loolu ngay def si moom mm-hmm. su màggee loolu la fekk ne mooy continuer moo tax su demee ba soxla dara amul ko moo koy dugal si yu bëri ba pare eh, ak àndandoor yu bon nit ah. da nga war a tànnal sa bopp àndandoor eh, su may daf ma daan wax ne comme nga emal nit bop hmm. taxone ngeen mas maas manam hmm. eh, ngeen tolo mbak waaw bu ngeen di dox sen bop ak sen tank ak sen doxine ye ben la waaw taxone nga tolo mbak taxone ngeen mas mas comme oh, oh, oh. man na nek comme ñu ma yaraw ci koñ magge fa comme hmm. jikko bu nga am ak man jikko bu ma am du ben bëgguñ bokkuñ bëgg-bëgg kon nit ñaar ñooñu ay ñooyam bopp waaye dooñ mas parce que nit xalat dafa am solo si nit ba nga xam yow kan nga fa nga jógee ak fan ngay dem ah, dafa am solo trop inshallah allah macha allah mu nek lu am solo li nga xamanteni tay deglu ngeen cadeau yi nga xamanteni tay mbow ikiti nako waye muy cadeau yi nga xamanteni muy cadeau yi fasa cadeau yi nga xamanteni tay kep ku ko deglu rek eh, di nga xamne ki tay waxna li nga xamanteni tay mom moy demi programme bi waaye léegi dañuy jàllarbe ko rek euh, jàkkaarloo ki nga xamante ni tey moom mooy Senghor euh, mu daldi ñuy wax tey kan mooy Senghor ak Senghor fan la cosaanoo waaye Senghor tamit tey suñ la bëggee laaj tey kan mooy Senghor tey kan mooy Babacar Senghor. waaw euh, man maa tudd Babacar Senghor. macha allah. dëkkee fii Gambia fii juddoo fi macha allah yaroo fii màggee fii mm-hmm. waaw. Eh, maa ngi juddoo Maraki sax fii gannaaw Birkaama fii ci Birkaama la bokk sax daanaka eh, maa ngi ne dama yaroo si suma ay oncle ay sumay maam daanaka yarowuma ci sumay waajur ñi nga xam ne ñoo ma jur ci ñaar ñi ma jur waaw ba pare eh, jàng naa fi waaye suma jàng soriwut i tamit ci waaw li waral loolu nag it's a long story mm. Euh, suma bay jele na ma fi tamit yobuma you know euh, Senegal mm. you understand ma don def ay napa jeun mm. you understand wow leg leg may mu yobuma dara sax xam nga rek ma nek ci dawaka di ak yoy nonu xam nga yefi yefi ndongo rek wow ma joge fofu tamit del ci wat fi ci sama yaay nek ci mom xam nga rek euh, ba legui rek nekuma ak mom ci ben place ma nek ci sama loxo mam suma maam bu baax sax waaw eh, kooku yore ma ci yorin yu rafet maam nag am nga rek am naa ay tolof tolof si àdduna waaye moom jàpp na si bu baax a baax ba tey jii nii xam nga alhamdulilah you know moom moo ma you mm-hmm. ma jàngi métier muy mm-hmm. carpentry bii nii mm-hmm. mooy Touré Kunda mooy eh, benn benn compagnie la woon bu nekk boori Jimbex fële na le jaar naa tamit am Euh, fii Touba workshop tamit. Mm-hmm. waaw Touba workshop boobu tam beneen compagnie bu rëy la woon. fii mm-hmm. Gambia fii benn sénégalais ko moomoon. macha allah you know during euh, Sénégal ak Gambia seen football boobu noonu. waaw ci la affaire boobu noonu am problème. Mm-hmm. you know and then xam nga ma nekk fii. di laalantu si yeneen liggéey yu bëri sax. jaar naa ci ay liggéey yu bëri xam nga di làmbatu ay xam-xam. maanaam lépp nekk ci gëstu daal. waaw ci gëstu ba xam fan laa war fan laa tënkoo daal man mm-hmm. waaw waaye dem naa ba xam ne comme euh, liggéey doole daal lu suma yoon mm-hmm. ma jàpp si liggéey boo xam ne nii bu oyof la mm-hmm. you know boo xam ne ni at least dama si dee am as tuuti yee ma nekka ci noonu ba ma setul xam rek am suma soxna waaw you know euh, ma try ba xam nga dëkk ak sama yaay ma ak samay soxna ak samay ñeenti doom macha allah waaw yal na yàlla xeeb dooli waaw nii la Babacar ñëwee. macha allah mooy loolu. ba pare tamit uh-huh. maa ngi ci tamit nekkat si training um, of film making. Mm-hmm. si loolu laa bëgg a rely on léegi sax. allah waaw macha allah incha allah. mu nekk lu am solo kon dafa mel ni Babacar Senghor am na beneen tur bu dul Babacar Senghor. waaw ma ne. <laughs> si wàllu activité waaw. <laughs> boobu moom man ma man may Paa Bari. waa Dira waaw mun naa la may rek nga cumaxal ko cumaxal ko rek su ko defee gars yi tamit gën a ràññee ki nga xamante ni tey. waaw xam naa ne àdduna euh, du ñàkk ñi nga xamante ni tey bëgg nañ la sopp nañ la ba pare tamit euh, toog di la seetaan ndax euh, bokk ngeen si ñi nga xamante ni tey da di bégal nit ñi. Hmm. bokk ngeen si ñi nga xamante ni tamit bu nit ñi stressé am feebar ana am na ñi nga xamante ni dañ naan damay am feebaru xel sax. Hmm. feebar ci xel du lenn lutut comme nga toog sa xel mi dalut. nga toog am stress nga toog nekk ci leneen sa xel mi di laal leneen waaye ki nga xamante ni tey moom mooy nekk nekk si media bi nekk si lu nekk understand nga di ko bégal ci li nga xamante ni tey moom mooy caractère am te yéen ñooñu wax dëgg neex yàlla jar ngeen a sant tamit te jar ngeen a gërëm su ko defee ma bàyyi la nga continuer ci li nga xamante ni tey moom nga nekkoon. waaw di wax askan bi ne rek. Mhm. man la Pabadou. <laughs> pa Banjul maa ngi dëkkee ci highest hiding street <laughs> ma ne ko long time um, naka la tuddaati sa semester la maa ngi nekkoon Germany for so many years xam nga <laughs> waaye dégguma dara nag lu dul Costa Lola rek Costa rek laa dégga <laughs> macha allah waaw mu allah bu nekkul am solo ah, ndeysaan su ngeen gisee lii rek ngeen xam ne ndaw bu dëggu rek am solo su ngeen gisee lii ngeen xam ne am yoon bi nga xamante ni tey mooy yoon bu set bi rek am solo waaye euh, Babacar Senghor euh, tey euh, ci li nga xamante ni tey moom lañuy ñu waxtaanee tey mm-hmm. foog naa for nga ci tuut ay kàddu yi nga xamante ni tey lan mooy taxawaay ndaw ci réewam tey su fekkee ne laaj bu gën a gàtt ci laaj yi maanaam lan mooy taxawaayu ndaw ci réewam waaw laajte nga lu am solo sax mm-hmm. taxawaayu ndaw xam nga man su ma waxtaan su ma ko dee baaxee di tënka mooy mm-hmm. Euh, saa yu nekk rek dama dee wax ne am na loo loo gis lu nekk rek am na doorin hmm. yaa gis waaw lu nekk rek am na foundation so waxtaan boo ci dugga tamit boo dooree ci foundation bi ba yéeg ci kaw dina hmm. dafa dafa tax you kiy kuy déglu hmm. mu yomba ci moom pour understand li nga expliqué waaw taxawaayu ndaw nag ci réewam loolu dafa bari you know um, then also suñu wax bi duñ ko mun a tënka ci comme directly si nit ki comme ok kuy déglu moom si boppam su waree déglu comme nuñ ko waxee ok comme noonu la war a doxalee déedéet because sample bi ah. dama koy jëlee ci man si yow si xëy na moom tamit kuy déglu mm-hmm. suy force suñu wax bi mm-hmm. mu jëlee affaire bi comme moom nu mu ko nu mu taxawee ci réew mi ah, moom ndaw boobu noonu yaa ngi understand mm-hmm. taxawayu ndaw ci rewam mhm. comme ni la ko waxe rek dafa yaatu mhm. ku nek xam nga sa sa sa euh, sa sa sa culture like sa ciosan ak aada ada. waaw xam nga diine bi mom bobu mun nga nek muslim mun nga nek christian mun nga nek anywhere but sa ciosan ak sa ada si kër bi mhm. nuñ la yare nuñ la trainer ci nonu ngay staté am taxaway sa foundation foofu laay dooree su fekkee ne yow sa waajur dañ la train very well comme suma mm. waaji comme ni mu ko waxee mm-hmm. obviously um, di rëcca mm. because am na ndaw yu bëri fii nii boo xoolee si négative side bi mm-hmm. dañ tànnal seen boppa yoon boo xam ne ni you du seen yoon mm-hmm. dañ xool nit kooku xëj na daf leen tànnee beneen boor ñu bugg a jël yoon boobu comme nga wàcca sa ànda rek. waaw ànda dem rek waaw macha allah. yaa ngi understand mm. ànda bi nga dem noonu jigut la. du sa yoon. ndeysaan fo foo foog nga bëri ay xaaxaan ay xam nga rek. ay obstacles waaw waaw xam nga loolu you know um, du du du di nga xam ne ni ndaw bi war na ko mun a jël di ko adopté gis nga nit ki yow soo xamee sa boppa mm-hmm. comme tey yow exemple yow Mouhamed. Mm-hmm. yow xam nga si li nga jaar xam nga si niñ la traîné xam nga sa waajur yi mm-hmm. sa papa lu muy bugg ak lu muy bañ mm-hmm. mun na laa mun mun ngaa nekk ci loxo mu lay teree ma ne ma ngay tux mm-hmm. ma ngay ànd ak kuy tux yaa ngi understand li ma bugga ngay def mooy demal ci daara bi jàngal diine bi nga jàngal diine mu ne la ok dama bugga nga dem ci place euh, sa onkul diw nga dëkkee nga dëkkaangum foofu noonu boobu yaa ngi ut beneen xam-xam pour xam doomi aadama ci boppam yaa ngi gis. lu uteeg say waajur. Mhm. yaa ngi gis nga dem foofu nekk foofu noonu fo so many years. Mhm. yaa ngi understand. Mhm. gis nga ak different different nit in that area. lu uteeg sa waajur yi ñu nekk. léegi bi nga demee ba mut nga ñib si. ñu xam ne ah suma waaji de fu mu nekk nii de mot na. waxambaane yaa ngi gis léegi ñoom si bopp ñoom si seen boppa dafa am step boo xam ne foofu lañ laa égal. yaa ngi understand suñ la égalee foofu noonu yow tamit dangay fiil ne am nga place boo éeg foo xam ne nii fu ees la si yow mm. foofu tamit beneen jànga la dañ lay beral sampal la néeg nekk sa site yaay ngi understand ñu doo di la tireen loo xam ne nii pour nga mun di enu some responsibilities because responsibilities mm-hmm. nekkul ne comme génne si sa poos joxe si kër bi mooy dépense ay dépense yooyu wala mm. responsibility dafa dafa dafa dafa enu lu bëri mm. comme nga xam say oncle say auntie say sister say brothers am nga say raka yeeg ñi nga bokkal ñëpp yaa understand ak su fekkee ne dara xew na nga am foo leen di mun a taxawu ba loolu mot sëg moo xam si xew la wala ku feebar wala wala leneen a leneen hmm. yaa ngi understand yow loolu yëpp si responsibility la bokk pour rek loolu daf lay jox grade boo xam ne foo bugga nit ñi foo soxlaa nit ñi si loo ootee pour nit ñi. nit ñi dañ lay gaaw a taxawu because loolu noonu yow yaa ko séeda sa boppa taxawaayu boobu noonu bi nga taxaw. loolu yow yaa ko séeda sa boppa eh, gis nga Mohamed sa waa ji daf ko wax fii mu a yarin. yarin mooy lépp. te ñun suñu waajur yi damay wax ne sax ñun suñu maam yi la ñoo wax. ñi jur suñu baay yeeg suñu yaay. ñooñu dañ dañ dañ dañ fiya mm-hmm. comme dañ dañ euh, dañ joxoon seen all energy and all heart mm-hmm. pour gis ne seen doom yooyu baax mm-hmm. but suñ bàyyi dañ ñëw ñu xala saagan tuuti ci ñun ah. you understand doo nag life mu ngi change things are coming up xam nga development mu ngi am yaa ngi understand but dañ xala you know lompoñal foofu noonu tuuti ci yarin bi dañ ñu bàyyeeg suñ sago ñuy dem you know di gena too much mm-hmm. yaa ngi understand di mm-hmm. dem fu ñu neex mm-hmm. yaa ngi understand te lolu warut time bobu da ngay gis ne yow exemple su fekkee ne yow dañ la ne tay dañ wara dem si ala bi nga baña dem ala nga dem eh, football yi o nga dem sangu géej o whatever fo daw dem bo ñib si équerre am nga problème ma da nga ragal waaw te di nga ñib si waa yaa ngi understand waye lolu yeb da ngay ragal because xam nga ne li nga li you know am na lu lay fekk foofu. Mm-hmm. waaw bu baax yaayoo waaye tey jii da gis doom bu waaye bu ñu santal liggéey sax naan su ma after dinaa ko def waaye xam nga su ma jëmee fii ñëw rek after dinaa ko def. waaw ma ne daad ma ne bu ma dee wax loolu anytime yi xam nga yow. yaa ngi di moom di moment yaa ngi may sa doom. Mm-hmm. saa yoo waxee rek daf koy manage. exactly di manage bu nangoo maanaam yow fi ngay waxee tey bu ko nit ñi bëggee dégg tey. mooy comme maanaam am na bàyyi maanaam ñun suñu bàyyi seen bàyyi ñoom bu ñu leen daan yar dañ leen daan forcé waaye ñun nag dañuy raay macha allah mu nekk lu am déglu ñun mhm. soo ñun dañ teel a am indépendant ah, si suñ waajur yi ndeysaan ndeysaan te loolu nag moo ñu indil gàllankoor yi ñu mujj am ñëpp si àdduna macha allah te ñun man dama yërëm suñ mhm. doom yi ñëw eh, eh, suñ waaw yaay yaay gis mhm, suñ gannaaw Nakal ah, naka altuwaari Cheikh Mouhamed mhm. gis nga ndaw mhm. man mi tay nga xamne takana jabar amna dom yet still mana suma suma suma doom yi sax mun naa maase ak ñu nekk ndaw mhm. yaay understand but things started like si dafa am yo xamne ni yoy bu si raxee rek daf de indi ay galankor yu bari comme ni ma la ko waxe waaw wax deug deug yaa gis dafa comme ni ma la waxee yi dañu war di taxaw bu baax ci xale yi seen ndaw góor yi tey ñoo gaadu lu bari si kër bi fi nga xam ne ni jigéen yi foofu lañ leen séedale waaye jigéen yi tey dañ jël fi nga xam ne ni góor yi foofu lañ leen séedale so dafa mel ni dañ exchange things mm-hmm. yaa ngi understand so this is why mm-hmm. yëf yi mu kalis comme ni ko mm-hmm. gars yi di waxee <laughs> so ndaw daal man li ma ci gis mooy nit ki yow da war a am sa own choice boo xam ne nii yow loolu nga mun a doxe pour sa on life kenn bul la ko kenn bum la ko yaxal yow rek ay mun a defar sa àdduna at this moment mm-hmm. because mm-hmm. luy yaaxa doomi aadama tay mu ngi nii rampal mm-hmm. taxaw feeñ nii yaay understand yaay gis drogue yeeg tay yi anywhere foo dem nga gis waaw yaay understand ki ngay àndal sax ki ngay àndal sax mun na laa yaaxa at any time wallahi yaa understand waaye tamit am na li nga xamante ni war nañ see wax bu baax a baax. muy lu xale yi xewal tey. boo ko seetloo ay fan yi néew si gannaaw rek am na. organise pool party di def lu leen neex. that's what I'm talking about. loolu fii nii la fii nii su suñu réew. loolu la wax dafa mel ni daal raay raayal yarin bi nga xamante ni tey moom nga nekk di wax. loolu moo nekk di dem ndaxte xale yi koy def am neen kër baay te am neen kër yaay. te buñ fa jógee ko seen kër ndey ak seen kër bàyyi moom la ñuy delluwaat te loolu tey bëri boobu tey nekk ci ñoom ne euh, seen waajur yi mënoon leen koo génnee ci ñoom balaa caractère boobu doon dugg ci ñoom waaye ñoom xaar neen tey ba xale bi puus loolu ba am indépendance am ñoom léegi ñuy toog foofu na ah diw dee léegi mënatuma si moom dara mënatuma ci sa doom dara est-ce que loolu am yes comme munaatuma kii moom munaat ci munaat ci munaatuma ci moom dara lolu amna, you know gis nga so much independence. Hmm. gis nga uh, this pool party nga limni, hmm. amna yenen party yeneen parti yu ko gëna bon sa bo xamanteni mu ngi ci biir bu gëna bon. waaw bu gëna yu gëna bon sa house party yi nga ni, nii. Ah. you know uh, and then also yenen parti yu bëri ñu ngi ñu ngi ñu ngi. ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi te nit ñang ko def every day. ñi di dem renti full apartment. ndeysaan you ku nekk am sa own side yaa ngay def sa loolu ak loolu yaa ngi understand so um, those things all those things ma ne la dafa depend yow nga choose because yow mun ngaa nekk si façon yi life boobu noonu nga foog ne nit ñi xamee wuñ la loolu. Mm-hmm, mm-hmm. people are reading ñëpp a ngay gis time yi time yi smartphone bii nii nga gis mm-hmm. nii. waaw téléphone yi ndeysaan. my friend dara laaxatuwaat. dara you know um, with all those things yi nga xam ne nii xam nga rek ci iPhone yi nga xam ne nii you uh, nit ñi jigéen ñi dañ see nataal seen boppa mm. yaa ngi understand di def taati neen mm. xam nga you di nataal seen boppa di di ko dugal ci media bi you understand loolu yëpp loolu yëpp uh, daf fi nekk loo xam ne nii comme like mm-hmm. du du du uh, du du du du so yow sa image mu ngi fu nekka mm-hmm. soo yow sa taxawaay su dee yow foofu la nekka comme def taati neen di dugal ci ci media bi you understand pour di expose sa boppa foog ne like loolu mooy tax ok ku lay ku lay bugga si loolu la laa buggee wala ki lay respect si loolu la laa respecté my friend loolu nekkut yoon boo xam ne nii loolu nekkut si yoon boo xam ne nii comme nit dina ko jëlee si nit pour ne ok kii baay ma respecté ko si ma respecté ko si si yoon bii nii you understand and then also su fekkee ne like uh, different from lii ki nga xam ne nii dafa nekk di wane boppam taati neen ah uh, uh, nga am koo xam ne dafa choose yoon boo xam ne dafa seela you understand dina muut boppam di toppa si ndogali waajuram mhm. you understand di mhm. di di di di di di di julli waxtu yi juróom yi you understand fu mu gis mag xam nga rek jox ko cër fu mu gis moromam def ko ni moo xam nga rek. Mhm. waaw you understand. Mhm. jox ko respect boobu noonu. Mhm. you understand yow kooku nuñ lay gisee. ak nu ñuy gisee kale. dafay ute dafay mel ni comme guddi ak bëccëg. yaa understand moo tax nag ndaw saa su ne looy taana mooy taanal yoon bu baax yoon boo gis nag am na obstacles am na ñoo xam ne nag dañ dee nekk si yoon bu baax ba mu yàgg tuuti ñu fiil ne noom daal fii luñ confortable si lii bàyyi ñu train fa waaw suñ demee si beneen bi mm-hmm. beneen yoon bu bon bi mm-hmm. affaire bi xala smooth ak ñoom xala oyof mm-hmm. ñu gis ne xam nga ñu ngi enjoy foofu live mu ngi cool xam nga waaye mujjanteel bi du rafet billaahi wallaahi luy luy njëkkee métti waaw mujjanteel neex moo gën fuuf li nga xamante day njëkkee neex mujjee métti mu nekk lu doy waar macha allah léegi su ko defee rek euh, ñu joxaat ki nga xamante ni tey moom mooy Mbow waaye ngeen xool programme bi naka la demee ngeen gis ne mu ngi ala dawme waaye mu ngeen gis ne tamit euh, ay ndaw ñoo toog tey di waxtaanee li nga xamante ni tey moom mooy euh, ndaw ñi naka leen war a dundee ci réew mi kon ñii euh, doon leen li nga xamante ni tey ay sample leen li nga xamante ni tey adduna wërngal këpp war leen a bàyyi xel waaye tamit war a xool ci li nga xamante ni tey moom mooy seen i kàddu dama naan kilifa duut ci yaram kilifa dugg ci ki nga xamante ni da ngaa yor sa kër rek kooku taxul muy kilifa xam nga lan mooy kilifa mooy ki nga xamante ni am na baat bu sell am wax ju sell am xam-xam bu set te sell kooku mooy ki nga xamante ni tey moom mooy kilifa waaye euh, Mbow eh, tey su ma amee benn laaj bi nga xamante ni tey euh, dinaa la ko laaj ndax damay dégg sometimes ñu bëri dañ koy wax naan government bi ñoo war a jàpp ci lu bari est-ce que tamit jotut ñun ñu dekkalaat li nga xamante ni tey moom la suñ mag ñi daan dundee daan ko yaree seeni ndaw ba ndaw ñu ñu tey jub di sell di sellal waaw laajte bi nga laajte am na solo mhm. eh, jamono bu njëkk ba mhm. mag ñi ñoom dañ daan bay dundi mhm. bay waaw ku nga xam ne bay eh, noor nawet bi nga bay noor bi nga dunde wala nga nekk su ku nga xam ne business businessman ngay nekk waaw wala eh, nga yar say gàtt di jaay wala nga amee sa magasin di jaay waaw foog nga am daal su nga xam ne loolu ngay jàpp eh, government dëgg la war na si jàpp waaye nekkoon ne daf si ñëw jàpp hundred wala weer bu nekk mu ñëw mu ne lii ngay dunde li la jox li ngay lekk ak li ngay naan déedéet eh, te tey tey ñu waxante dëgg tey gouvernement bi tamit su taxawoon ne dafay dimbale ndaw ñi yan ndaw lay dimbale ak naka la leen di dimbalee da ngay ne si yoon bi ku la si fekk yëpp may la livre ku la mayu livre tamit nga góorta góorta rek ba fu ko yàlla soobee nga àgg nga àgg waaye nga toog li jànguloo amuloo micc mm-hmm. nekk di toog si strasse yi mm-hmm. nekk am tuxam taay meeg mm-hmm. eh, di gens xam nga lu ko gars di waxee. waaw drogue bi. surtout benn am na bu gars yi di ooyee euh, nu mu tuddati baas. mooy kus bi. waaw mooy kus bi. waaw bi nga xamante ni gars yi dañ koy lok per baa ngi rey booy. Eh. booy ba xam nga tey. Uh-huh. ñooñu toog foofu si stratégie nga xam ne amuñ benn métier. Mm-hmm. jànguñ demuñ jàngi jàngiwuñ métier. Mm-hmm. toog foofu noonu naan government mi daf ñu war a dimbale. Mm-hmm. government mi su ñëwoon pour dimbale naka la leen di dimbale. looloo jaral laajte ndimbal na sa fekk loxol borom waaw eh, doomu aadama yow ndaw mi da nga war a fexe ne lii lay defal suma réew loolu moo jara ndamoo maanaam foo toll rek waaw naan lii laa liggéeyal suma réew bu la laaj yow yow laajal sa bopp lan nga defal réew mi moo gën a am solo naan lan la ma réew mi defal parce que njiit yi ñu am tey yal na ma yàlla baaxal waaye ëpp doole bi seen intéress lañ toppee hmm. eh, askan wi lu gars yi di wax Eh, ñaq baadoola mooy siim cere buur eh, siim cere buur te xam nga ne loolu moo fi am te yow ku nga xam ne sa ñaq moo koy mooy siim cereem yow ngay expect ni kooku dina la dimbale balaa mu lay dimbale kañ dafay fekk cereem bi mu siim ba tooy ba am lum si teg waaw waaw su desee nag mu la su desu tamit du la tal des fois sax mu des mu këpp ko voilà so moo tax dafa war a baax dafa baax nga xam ne yow nga ne ida government bi ñëw na ñëwul yow nekkal si li nga ne te Senghor dafa waro am sol nga xam ne ndaw nga xam ne mu laal suba mu dem si lële jëmalewul bir kanam dom adam da ngay fexe ne si benn mbir mhm. mu jaral la lu ne nag mhm. waaye na nga xam ne suma yoon la a nga nit ku ne yaa gën xam wax balil insaan ala nafsi basira ya, mhm. nit yaa gën a xam sa bopp tey yow xam nga ne yow média bi ngay nekk nii di si liggéey xam nga ndax baax na si yow wala baaxul si yow so soo xamoo soo xamoon ne baaxul si yow doo si agsi fii tey da nga xam ne baax na si yow nga jàpp si nag fas yéene nag eh, mu développe mu jëm kanam moo tax nga jàpp si ba tey waaye am na ñu bëri nga xam ne commencé nañ ko affaire si commencé métti ñu bàyyi so loolu amut njëriñ nit te soo seetee suñu réew mi tey ñu nga xam ne ñoo ne si kaw nga xam ne ñoo yore business bi wàllum eh, jënd ak njaay mi eh, tooguñ xëy xëy rek mu dox de dafa am fu gaay commencé mu am ay jafe-jafe ñu koy muñ muy métti ñu koy muñ mhm. ñuy daanoo ko jóg mhm. ba tey alhamdulilah sant yàlla yàlla def li mu def waaye ndaw bu nga xam ne da nga naan da ngay toog ne gouvernement bi dañ war a dab dañ si war a jàpp dañ si war a jàpp gouvernement nu mu la mën a jàppee ni mu si mën a jàppale mooy tey njàng mi mu yombal ko te da gis ku nga xam ne from grade one to nursery to da ngay jàng du am benn jafe-jafe waaye soo fa waree jóg dem university fa la coow li ne soo amul jàppale bu dëgër mhm. pour nga de sa éducation mhm. dafay nekk problème waaye su doon ne comme sama zaar yi tey mhm. bu ñuy nekk euh, grade seven mhm. mooy salesa euh, awal iadaadi arab di ko ko wax mhm. si lañu suñu waajur dugal si métier nga xam ne su bii demut bii dina dem ñu si daa jàppalante jàppalante ba jëm nañ ba graduate grade twelve si arabi school bi ñu ngi continuer bu ñu demee ba ñu ne xaar ñu dugg si english bi pour xam nga réew bu ñu nekk réew english la baax na nga xam mën a bind mën a riit bu ñu si duggee di following iya si lañu suñ boos ber te daf ñu gëmloo ne nga ne fi dinga mën a tekki te ndaw yu bëri jàpp nañ ne government waa leen war a dimbale war a ida tukki moo leen mun a tekkiloo te tukki taxul nga tekki yàlla bu ne foofu moo ne fii waaye soo waxee ñu naan la ah dëgg bi kañ bàyyi ma booy su duggee Babylone rek mm. affaire dina baax. <laughs> macha te yow affaire si bu commencé wuloo fii mm. eh, su commencé fii nga xam nit yi dem ba xam ne kii ku ko jàppale mu dem mm. ñu mën laa jàppale. Mm-hmm. waaye yow jàppaloo si dara. ndax yow sax tey yaa ngi si raba raba bi. Mm-hmm. suba ñu gis la si maquette bi yaa ngi nekk fii di raba raba fuun. Mm-hmm. ëllëg ñu gis la si lebresse bi. suba yaa ngi si oto yi kenn xamul fi nga taxaw. même yow sa bopp sa jëmmi bopp sax. waaw. Well. su fekkee ne li nga xamante ni tey yow yaa ngi koy jàngale. waaw yow si duñu bopp ba ngay tàmbali. Hmm. jékki woo saay rek am atelier. sa boos da lay ber. waaw mun naa am nga am sansu dem hmm. di embauchement yi. mun naa am nga am sansu yor sa benn machine. di ci liggéey. Hmm. waaye lépp loo gis rek ñi nga xamante ni tey ñu ngi koy def. Euh, lépp li nga gis nga xamante ni tey nit a ngi koy def rek. dafa am benn pas-pas. bi nga xamante ni tey moom moo war a nekk ci yow. pas-pas boobu noonu mooy ñëw ba jural la li nga xamante ni tey moom nga doon séentu ci sa life. waaw mu am solo li ngay wax. mbiri xëyul rek. Hmm. sotti déedéet dara xëyut sotti. difin tabax. Hmm. dafa am foundation. Hmm. soo demee ba gas foundation bi concret commencé teg ay briques. muy jóg. muy jóg ba nga xam ne léegi dem na ba nga def roofing def finishing everything ku gis mu ne rek bi na macha allah néeg bi taaru na seetal comme jotaay bi fu ñu ko nekk di def ni yang yanj na macha allah xëyut benn bés rek mu sotti dafa am proses am nga xam ne eh, da ngay commencer fi mhm. dem. waaw muy yek muy mhm. dem dafa am ay level. Mhm. ñun xam nga ñun ay gune dara lañ. l'islam bu muy tambali si ben ruq bu ndaw la. moy daru abi arqam. fo la ngay commencer. wa ku non Abu Jahli ne dina bi dina dem ba Afrique. daj aduna bi wëngar kep ndax dina ko dedet du ko gom so eh, dafa am solo trop nit ngay muñ manam mhm. muñ ñaka muñ gogu tamit nga wax eh, dina yebbu ci ndaw ñu ci lu wow. bëri manam maanaam nga nekk ci dara rek nga fogg dafa yomb rek waaw nga dugg ci mu deugar tuuti nga daw comme ñuko ko eh, Senghor mu nekk lu am solo waaw te responsabilité bu mu wax mhm. soo ko bi nga nekk ndaw mhm. so magé mu ngi la fay xaar ben nga njëkkee ko mu métti mu jot rafet mu neex wala nga daw ko bu muy bi ngay nekk ndaw nga màgg affaire si métti te doomu aadama lu nga xam ne mënta ñàkk njëkkee ko soo ko njëkkee rek mujj dina neex macha allah soo affaire yi nga xam ne mu ngi noonu. macha allah mu nekk lu am solo li nga xamante ni tey waa dafa mel ni da laal sa benn kaasu caayin. waaw waaw eh, mu waaw waaw. ataaya bi la da ciy baax. da ciy baax trop wax dëgg neex yàlla. ñuy ñuy ñuy waxtaanee ataaya bi. Eh, di gis si suñu bopp. waaye tamit nag di wax gaa yi ne ku njëkk ñëw yaa ñu moom. ataaya bi la tudd amagul tur ataaya bi rek la moom la tudd. ñu ngi leen di xaar ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo war a sponsor ataaya bi ñoom xam neen seeni bopp te ñu ngi woo ñëpp ubbi neen suñu plateforme si képp koo xamante ni rek bëgg na gis li nga xamante ni tey moom mooy suñu programme rek su seetaanee dina gis nomba yi nga xamante ni tey moom leen dee bàyyi ci suñu plateforme si soo ñu contacté rek incha allahu rabi lépp loo xamante ni tey bëgg nga ko rek mu jàll rek ci sa wàllum liggéey même bu nekkul ataaya bi waaye lépp la nga xamante ni bëgg nga ko jàllale rek si wàllu liggéey bi rek nga daal di koy euh, indi ñu daal di la koy advatal mu nekk loo xamante ni tamit boobu euh, am nañ si xereñ tànge bu wér a wér boo xamante ni tey buñ la ko defalee di ci gis sa bopp waaye rawatina ñi nga xamante ni tey ñoom ñooy nekk sama caméraman yi nekk ci gannaaw di jàpp ci li nga xamante ni tey moom mooy liggéey bi di imam Assane waaye tamit rawatina Baye Moustapha man su may su may sëriñ rek ma tiyal caméra man ma toog fii nii wax dëgg neex yàlla kon ñooñu dama leen di sant ba pare dama leen di gërëm mu nekk timi lu am solo li nga xamante ni waaye Babacar um, dañu bëgg tey ñu waxtaanee tey ci beneen femme bi nga xamante ni tey gis nañ ne ndaw ñaa ngi koy dund mu nekk lu métti loo xamante ni tey ku nekk. Mhm. Euh, euh, yaa ngi ci teg sa bët. muy baak wee bi nga xamante ni tey ndaw ñaa ngi koy laal muy mbënn mi. barsàq wala barsa mu nekk lu doy waa loo xamante ni tey yow tey euh, lan nga am tey pour wax ci li nga xamante ni tey moom moo nekk baak wee moom muy mbënn mi. laaj nga lu am solo. Mhm. Mohamed. macha nag affaire bi comme man ni ma baax rek mm-hmm. su ma wax bu ma'am, dama dee bugga mm-hmm. ma am fu mu ko ah. waaw maanaam lépp looy gis daal dafa war am guy guy yi mën bagwe bii ni mm. ngay wax man experience naa ko daanaka ah, yow mos nga siy jaar waaw <laughs> so daa gis ne. Mm-hmm. Euh, jamono jooju dama bëgg a jël exemple bi rek ci man. jamono jooju nag euh, maa ngi wax ne comme man daal dama war a am. wéeru ko comme ne ok government bi daf fi nekka pour seen ñoom seen boppa rek mm. wala you suma waajur yi nanguñ maa dimbale si anything mm. you understand eh, ñeneen ñi nag dañ ko dee sukkal si loolu bot soo leen laajee deeply lan mooy di main purpose yow nga war a choose Bagwe bi te nga nekk fii war koo mun a def at least yaa ngi understand su dee tekki rek la hmm. you know mun ngaa dem fële sax te doo tekki foofu mun ngaa nekk sa dëkk bi fii hmm. nga raw hmm. yaa ngi dégg baagwee mm-hmm. comme man ni ma ko daan waxee mm-hmm. man dama daa wax ne xaaral mm-hmm. ma dem su ma demee ma am su ma amee ñëw di dawal ay moto yu neex di sanse di tabax fi ay kër yu baax you understand concept boobu rek laa amoon comme boo xam ne nii dama laa wax ne comme su fekkee ne tamit dafa am ñoo xam ne am nañ concept boo xam dafa gën positif man suma bos wut hmm. ñu bari foofu lañ ko wéer te te ñu dem baag wee nii laa laa waxal nii ñu dem ba ñëw di hmm. same thing la rek waaw dama war a dama bugg a dem su ma amee ma wajur su may waajur loolee naa teralee ba ba yow ah hmm. nga nga def li nga xam ne sa waajur bi yow yow da ngaa dabul yow sa waajur lu mu la defal mun loo def dara si kaw aduna fii nii loo xam ne nii. Mhm. da nga passé say waajur. Mhm. yaa ngi mhm. gis nga nag euh, dem Bagwe. dafa am li ko war a sabab sax si boppam. nga soog a cuus dem Bagwe. yow nga bugg a dem Bagwe. dem ci beneen réewi jàmbur. te benn amuloo métier. yaa ngi understand. amuloo benn aim su su sukkandeku wuloo ko si fen. si dara si dara yow daal xëj na nga dem aaga foofu noonu rek fekk fa ay maire tubaab yi ñu laa wax ne ah kaay nga toppatoo kii nii rek ñu laa fay pamoon nga nga nga wéer ko foofu noonu. ok léegi kooku su fa nekkut loolu su yow loolu fekkee ne loolu amu fa yow danga war a am pour dem wala kaana ji foofu noonu. my friend il faut que nga jàngal sa boppa li nga xam ne ni yow si àdduna foo mun di dem. yow loolu ngaa loolu ngaa use muy sa doole te foofu sax doguma la euh, téye ko foofu rek euh, ndaxte am na ñu bëri ñoo xamante ni tey ñu ngi dem di liggéey euh, beneen façon liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy liggéey ci ci Europe bi te tey boo leen tegaloon pan tey na leen ne da leen xëy di fóot every day ngay am five hundred dalasis ñoom ñu tukki di am fale every day one dalasis moo leen ko gënal ah li ma la wax rek la leena la comme ñew di ama dem bitim rew ñew di xajaan lolo si opa ñi nga xamne ni dañ bugg dem teki digga digga digga ñew indi pour sen rew dimbalé sen wajur dimbalé sen rakay dimbalé ñeneen ñi nga xamne ni sax xamanté nañ at least même bokkuñ ci benn rek waaye tay lu ci gëna bari moy mm-hmm. harama dem ñew xajaan la yow mohamed loolu du im bu kiyé manan la yow dëkkukaay time bobu dama dan dem sa site for example di dem di watan fo di agn sa site ma dem Europe fi ceeñ ma ñew legi ma may buga a yow ngay ñew suma site oh. so ñewul suma site ma bàyyi la ma ut yenen friend friend US oh, oh, lolo fi gëna a bari man suma tricota boy yëpp a tukki bàyyi gars yi dañoo games ak yoy nonu yep ñu faté ma ci bir man hmm. li ma wax ni bilaahi waaye mahadi ma man maa ngi si kaw àdduna fii ok tukkiwuma dem Europe musuma dem Europe kom tukki dem Europe hmm, hmm, hmm, yaa ngi understand but fi ma nekk fi si Gambia bi -hmm. every day every day maa janga, jànga maa ngee xam li ma xam man ngi understand Nyom suñ ñëwé dañ ma gis ci benen level fekk ñom itamit ñu ngi ci benen level waaye duñ ma fekka fiñ ma bàyyi woon yaa ngi understand mooy tax nag duñ ma gaaw a yàpp man tamit duma leen yàpp because yàpp du ne comme damay taxaw di poñewante yow ak yooyu bot yabante ci xel am na yabante physical yi am na yaa ngi understand so du ma yabante yow ci xel waaw yaa ngi gis moo tax nag su fekkee ne comme ndawi réew mi. Mhm. Euh, dañu euh, yëfi baag wee moo leen a tax a tekkiloo. Mhm. dama leen ne déedéet. mun ngaa nekk sa dëkk fii nii. Mhm. nga cuus. cuusal li nga xam ne ni. yow foofu nga sukkandikoo moo lay mun a jàppale. fépp foo dem ci àdduna. doo wéeru ci nit. wala doo xaar nit. yow loolu noonu nga mun. moo lay yóbbu. yaay mun a yóbbu sa boppa fu ne. même bokkuloo ak nit dëkkuwaay wala bokkuloo ak nit pour ngeen jëndal lekka wala lii yow yaay mun a yóbbu sa bopp sa boppa because nit ñi dañ lay respecté li nga mun noonu moo tax nit ki da nga war di train sa boppa every day jàngal every day jàngal du doy du jeex mm-hmm. bés bu nekk gis nga exemple ñaw bi nga wax nii yow loolu nga mun mm-hmm. beneen at beneen façon yi machine mooy ñëw boo xam ne di nga bugg a di nga bugg a jéem loolu mm-hmm. xam ko di nga ko bugg a jàngal ko bugg a beneen façon yi design mooy ñëw noonu la mel tamit ci ci lu nekka hmm. faana bu nekka noonu la mel hmm. ci wàllu fiimin hmm. you know what I mean gis nga man comme si fiimin bi ma nekka nii tey every day maa ngi jàngal lu ma yéem xam nga every day maa ngi jàngal lu ma yéem because xam nga lu xew at the end of the day man loolu laa bugg a def so su may demee ba di ko def obviously daf ma dama ci war a sacrifice lu bëri so su time bi jotee pour man ma war you know ma expose mm expose you understand dafa wara a ne comme xamna sori na ci lu bari so yenen yu es yu ñew mu feka ma si ma ci dem di janga di si janga, di si jang. you know waye lol dal man dal concept bi boy ne comme ok dama bëgg dem bagwe pour ne waaw dama bëgg tuki tukki tukki ñew tegi xawma indi euh, teral sumay wajur ak yoy know, ñu bari defuñ lolou ndeysaan so mën ngaa nekk si dëkk bi fii mhm. nga tekki mhm. tekki bi nag nekkul ne comme daf lay tekki du tekki tekki su sewut fii mhm. dama war a am moto am jënd kër ak yooyu noonu déedéet soo soo amee looy mun a solver say problème rek tekki nga tekki dafa ëppante levels waaw am na ñu fi nekk mosu ñoo dem fenn waaye ñu ngi am loolu ak loolu. wallaahi wallaahi waaw wallaahi macha allah seen aim bi rek. macha allah waaw. macha allah ah, lépp rek ci li nga xamante ni tey moom mooy aim la maanaam nit nga gis dara ne li kat moy suma tagget li warna ko koo am dama wara dem tukki ngir tekki eh, teral ñi nga xamanteni tay ñom ñoy samay wayjur waye tukki tekki teral li nga xamanteni tay mom moy sumay xarit ak sumay am di jamm mm. ndax di nga gis nit ki am amone e pour def dara yow ci tamit bop nga daan deglu koku ay waxam nga daan deglu ay waxtanam mm-hmm. nga xamne ki li mo moo ene waye yow nga xamne ki amul li mel ko yow ngay booyam nekk xaritam benn bakkanam yàlla dogal kooku kooku sax dëddu kanaa xamula ne foofu sax nit dafa di jógee pour dem uti ngir ñëw mottali kooku éeneem bi mu amoon su fekkee ne kooku am na benn euh, capacité bi nga xamante ni tey mu ngee daw si xelam maanaam nekk na benn façon nit bi nga xam nit bu dëggu la waaye nekk na nit ki nga xamante ni àndandoor bu am taxawaay la waaye nekk nit ki nga xamante nit ku am xelaat la comme li nga wax rek ci ci wàll li nga xamante ni tey moom mooy émi mu nekk lu am solo. waaw eh, Mohamed. Mhm. dama la bëgg a wax leena mhm. pour nga understand gis nga Gambian. Mhm. dafa baax trop. ci ci ci mun a xelaat. Ah. Gambian mun na am dafa baax trop. Gambian is a is a very is is amanaka is very good on thinking positive. Ah. léegi soo ñëwee pour rek def ko. ci def. Gambia ndaf si over lazy moo waral suñ jotaay suñ jotaay muy gën a survive comme suñ jotaay muy dunda bu baax comme dañ dee mun a toog na place nii ñuy waxtaan ñuy wérante hmm. non lii mun ta nekka nii lii mun naa nekka nii loolu mun ta nekka nii man su ma amoon lii nii laa ko mun a defee nii nii léegi soo amee loolu sax danga nga dee lazy oh. yaa ngi understand hmm, hmm. léegi exemple yow Mohamed comme for exemple yow man a yow ñu ngee waxtaan suñu waxtaan bi mu polite. comme mm. mu mu mu mu comme nekkut waxi xëccoo yooyu nga xam ne day baax ñii dañoo xuloo mm-hmm. but ñu ngee waxtaan in a sense ne mm-hmm. yow loolu su amoon dina wala soo ko amee dina baax si yow wala man ma laay wax loo xam ne su ma ko amoon dina baax si man mm-hmm. Mohamed gis nga yow li ma wax noonu yëpp man dama war a téye loolu sax because Mohamed su ma waay la am na xalaat bu baax boo xam ne digga digga su ko amoon dina raw te su si nekkee xëy na dina muslu si ay dem baagwe ak stuff like that yaay understand wala di dem jëlantu alali jàmbur léegi man su fekkee ne yàlla def na man ma ma doon toog ak yow nga may xelal loolu ma xam ci yow ci ci li nga bugga mm-hmm. ah mm-hmm. yàlla def ma am mm-hmm. obviously su su si xejee su fekkee mun na laa dimbale loolu yëpp sax dama la war a mun a puus dimbala la si tuuti ah Mohamed amoon na time. Mhm. yaa ma doon wax lii ak lii ak lii. ne lii nga bëggoon ndax ba léegi yaa ngi si. Mhm. mu ne la a ah, waaw kay man kay su ma amoon loolu ba léegi ma ma ne la ah. start with this. Mhm. Gambian baaxewut foofu noonu. Oh. si dimbale. si dimbale Gambian baaxewut foofu noonu. non non no non. te loolu te loolu bokk na ci liy gën a jox ndaw li nga xamante ni tey moom mooy courage. loolu ko yokk ko doole. loolu moo gën a tax sax people are moving ñu ngi sacrifice di dem ñun we with our these ideas comme yu ñoo am nii Mohamed manaa yow mun nañoo def loo xam ne nii Gambian si at least you know dinañ dinañ si am dinañ si am astute keneen tamit dina ci am si ñun manaa yow ak ñii ak ñii mm-hmm. you understand ñun yëpp suñ bokkee benn team ñu gis lu ñoo def rek once rek mm-hmm. nañ gis ne ñun def nañ once lii nii Gambian dafa am ku war a jógee na le mu ne leen hey boo yi man xaaral man dama war a def suma nangam si nii. pour lii nii. waaw because luñ door nii. am na keneen koo xam ne am na ci beneen xalaat bu gën a rëy ñun fuñ fuñ fu comme em. fuñ em waaw. si xalaat. waaw yaa ngi understand. Mhm. di doole si ne. comme government naka la war a def ba war a cancel ay ay xama ba war a eh, avoid booy seen dem bagwee ak stuff like that. man gisuma kenn koo xam ne mun naa stop. Mm. dem bagwee. not even government bi sax mun nañoo indi ideas ne ok dañoo enlarge comme job yu bëri. wele wele wele companies yi. pour booy di dem foofu noonu booy hmm. ñooy am choice of ne. Hmm. dañ war a dem pour liggéey. Hmm. ok government dafa war a indi ay factories ak yeneen yeneen yeneen yu bëri. pour rek booy yi mun a nekk foofu noonu. booy ku ci nanguwut doo dugga si yooyu. wala sax ay government yombal ay dunda yeeg yooyu noonu stuff like pour dëkk bi neex waaw pour booy stay. Hmm. booy yi ñooy am choose stay. Hmm. because of dëkk bi mu ngi neex. Hmm. yaa understand. government bi mun nañoo dem si saati géej yi di téye fu nekk ak yooyu noonu. even those in government sax mun nañoo bokk si deal boobu noonu nga xam ne ñooñu ñu ngi bugg a dem si baag we jaar si baag ba ñu bugg a jaar foofu noonu ñu jaaree fa. soo luy stop baag wee bii nii man gisuma ko mm. yow ndaw mi yow sa boppa mm. yow yaay nangu mm. pour stay nga nangoo liggéey fii nii mm-hmm. waaye soo buggee jóg pour dem wee tamit na fekka ne yow mm-hmm. li lay yóbbu ci beneen réew mm-hmm. yow fexeel ba am li nga xam ne ni yow di nga mun a yóbbu sa boppa waaw te lii tax nga ne ok dama bëgg tekki ñëw teral sumay waajur yow meeg soo tëreen nga ko xam nga ko mun nga ko soo demee fale kenn du la fa yab kenn du la fa yab da ngay yegg liggéey ci li nga xamante ni tey moom mooy liggéey bu mucc ayib macha allah ah, suñ buggee dégg rek mooy ndaw li fi nga mëntu nekk te amuloo fa métier kenn du la fa jox cër muy Gambia muy beneen réew bi nga xamante ni tey dem nga fa euh, lu mu bëgg a wax rek mooy foo mënti dem na la fekk nga ànd ak sa xam-xam xam-xam mooy yëpp soo amee sa métier nga tukki kenn du la yëpp uh-huh. waaye yow dem baax wi te amoo xelaat amoo métier amoo lenn war a dem ne man dama war a dem pour liggéey tekki teral uh-huh. kon yow danga nga war a dem pour taxawaalu su mbedd mi te ñu ngi gis tamit léegi euh, loo xamante ni tamit mu ngi def hmm. ndax euh, booy yu bëri dépôt nen la te sometimes nga dégg nit ñi naan sax euh, lu tax ñu ñuy dépôt booy yi hmm. sometimes tamit nga dégg ñu ni ah loolu lu war a am la ndax de boo fa demee di fa dund dund mu métti xam nga mégu sant nga dem dëkk jàmbur di nalaw si mbéyday waaw di fanaan si mbéyday understand nga mm-hmm. sa way jur duñu xam ci loo nekk bëri na maire yi nga xamante ne ñu ngi tëdd si hospital bi li leen fa tëddal yëpp mooy seen doom yi xamuñ si ngeen condition leen nekk yow tamit sa jëm boobu xam nga ne si condition bi nga nekk baaxul waaye nangu woo tëppaat baax est-ce que loolu jar na ko Mouhamed naa la wax gis nga dëkki tubaab yi dafa bëri loi ah. every week or every month you know war nga dañ la dee indil ay ay ay letters envelopes ah. yoo xam ne xëy na yow def nga benn mistake boo xam ne yow réaliser loo ne danga nga def mistake ñu indi la ko ba sa néeg cameras are all over fu nekka ñu ngi laa gis yëngatu boo yëngatu rek gars yi ñu ngi laa gis so melut ni comme ñun suñ fii ah. comme mu neex ma rek ma dem si kër diw ma dem ba dugga sa biir néeg ba sa biir cabinet yu doon melut noonu man dew ma fa de hmm? but obviously nu gars di dundee hmm? to be honest ku fa dem su ñëwee wax la keneen tem nga mu dem ñëw danga la hmm? da see jàngee ak li ngaa gis tey si media bi fu nekka and also uh, friends connection bi nga xam ni mën nga ko am fofu nonu ya nga fi am nga rek ci media bini ni am so yes da nga ko day mëna gis Europe dafa bari loi ndeysaan so ñun dañ min comme di demalante yoy non tuba bi haar mhm. lolu haar fekkun len fa dedet dedet ya nga understand mhm. eh, tay su fekkee like yow dem nga Europe mhm. amulo kayit bu baax lo fayal sa bopa néegi luas, hmm. my friend wow da nga fanaan street bi te ñom tamit street bi nonu gis nga bi government ba ko mom suñu leen neexee su su government bobu noonu waaw dañu dañoo ken kenn ñoo gis kenn ci mbedda bi so yo obviously <coughs> suñ la ñëwee fekka foofu benn ñaar ñetta daala foofu non hmm. dañ lay paqueté man hmm. yobula yobula because dañu xam ne yow fi nga nekk fi amul amulo ben jëriñ amaloo dëkk bi jëriñ amul loon nit ñi njëriñ yaa ngi understand yaa ngi xatal foofu noonu. ndeysaan so obviously dañu laa pakete yóbbu la sa hmm. dëkka. ndeysaan because dëkkuloo fa. te ñu dëkka ci dëkka boobu noonu sax Europe bi sax. Hmm. am na ñoo xam ne nii <coughs> ah, ah, duñ dee am sax luñ dee fayee lu waas te dañ dee fanaan ci mbedda bi waaw astuma laa yow mi nga xam ne nii yow. yow dëkkuloo ci dëkka bi dem fa you ndeysaan mu nekk lu loolu soo ko antanu dañ lay paqueté indi la man mm-hmm. waaw macha allah ah, mu nekk lu am solo léegi su ko defee rek dañuy toonaat ci mbow xam naa ne nag ah, lu duuf si nag li xajut si cin li mu nekk lu am solo li nga xamante ni tey ah, yaatal leen ko fi waaye tamit dalal gan ñi nga xamante ni tey boo leen gisee seen toogaay rek li nga xam ne ndaw ñuy ñar leen waaye boo gisee seen toogaay nga xam ne ndaw ñi nga xamante ni tey xam nañ fu ñuy teg seen tànk waaye xam nañ li nga xamante ni tey moom leen bëgg def ak li nga xamante ni tey moom leen bëgg dox ci moom leen bëgg a mu nekk lu am solo loo xamante ni macha allah ñu ngi koy kontaanee bu baax a baax euh, télé bi nga xamante ni tey moom mooy Baobab TV den taxaw pour lépp loo xamante ni tey euh, ñu ngi koy def ci wàllum li nga xamante ni tey moom mooy euh, développe li nga xamante ni mooy sa réew wala dimbale li nga xamante ni tey moom mooy àdduna wala jàppale li nga xamante ni tey moom mooy ndaw ñi mm-hmm. waaye timit xool li nga xamante ni tey moom moo nekk jafe-jafe yi ñu jëm ko utal saafara léegi waxtaan neen ci ndaw ñi waxtaan ci li nga xamante ni tey moom moo war a développer réew waaye lan mooy saafaraay li nga xamante ni tey mooy ci dundin su ko defee rek ñu daal di tënkee ci loolu euh, tëj programme bi ñu euh, digaat gars yi rek yeneen i programme yi nga xamante ni tey ñoo ngi si suñ kanam lan mooy saafara si saafara si hmm. li si njëkk tey eh, ndaw yu bëri dañ ñàkk confidence confidence ci seen njiit seen réew jaralatul leen dara wala waxee sax man naa dem rek moom a gën man naa génn dëkk bi loolu da koy dama ko dee yomb di dégg ci ndaw yi ñu koy wax naa génn rek maa génn waaw te comme fekkee concept boobu mu ngi suñu xel yi mm-hmm. ñu ngi koy xalaat always mm-hmm. pour ñu jóg def dara dafay jafe benn gom gëm lañ war a gëm ne ñun réew mi ñu ñoo ko moom ñu ñoo ko war a mën a développer te mu jaral ñu lu ne mm-hmm. fekk amuloo gëm-gëm boobu noonu du dem te boroom xam-xamee dañuy wax ne yonent bi wax na si hadis ne xubbul watanu minal imaan da bëgg sa réew si ngëm yàlla la bokk parce que soo bëggee sa réew tey dafa am mag ñu nga xam ne ñoo sacrifice ba ñu am indépendant tey waa indépendant bi soo ko seetee tur la rek yow amul lenn lu nga xam ne ñu ngi koy dundee lu nga xam ne fii lañ ko nekk di ko consommer lu nga xam ne fi la koy béyee fi lañ koy defaree mm-hmm. loo gis fii dem na ba ñu dem si biti dem jàng jënd fa yére yu ñu sol sax moo leen di gënal ñu ute ko fii lu ñuy lekk lu ñuy lu lu ñuy tarale suñ néeg everything Gambian bi dafa jot ñu gën a jàppalante eh, Senghor dafa wax lu am solo mu ne dafa jot pour Gambien yi jàppalante ñu fexe ñu ne ñun ñoo def lii pour xàccandoor doorandoor mbolo moy doole te ñaata ñaata eh, ñu nga xamne ne fi ñofi ñew mhm. so lu nga xamne ne yakaru lo won ne sax nit mëna na si ñu ñu ñu ngi si tedd bay teral teral seen i morom seen wayjur ak mhm. eh, gambian bi fay du de dimbalé moromam mhm. te kat bi wéné na xarit bu lay may jeun mu jangal la nu ñuy nappé moko gën nga everyday ma ñew na la ah tay boy naka la baxé ma dara ma dem everyday ma koy def su yàggee ya, lo bax bax da nga nan ki dafa sof waay so fexé nga ne ma kay jabal ci li mm-hmm. ma jema set lu def lu nga xam dina ma jural dara mm-hmm. for example, tay nga jox ma setal setal suma mbokk pulu fu tay so ñëwee luñ la jox dañ laa jox palaati guru wala ñu jox la puus puus ñu ne la demal si marché bi nga dem puus wala ngay jaay palaati guru ba ci yàgg ñu dem utal a benn ndàmbi guru nga ñëw teg pañi guru bi nga ñëw commencé foofu noonu nga dem ba ci yàgg ñu utal a benn store wala kenn jël la si store am bitigam bi ngay jaay ci mhm. noonu ngay dem ngay màgg xam nga affaire ci mu ngi développe mhm. waaye ñu tey lu ñu bëgga tey man ma toog naan waaye say Babacar su su ma ñu suma ma koñ su waay la every time su ma side lam dee ñëw campé xam nga Gambien dafa gëm loolu te loolu jëmalewul réew kanam eh, tey ndaw yu nga xam ne tey bëri na ñu nga xam ne am nañ suñu waxoon ne man am naa dinaa fexe suma moroom mu am suñ ko defee rek deux mi dina dem hmm. waaw nga jàpp si dara nga fexe nga at least suy benn nii sax nga ne kii dinaa make sure ne ma def ko mu doon boroom xaalis. waaw ma comme da nga gis eh, ful kër benn nit mooy dundal kër gi te xam nga ne loolu mbooloo fu ñu ne kii su jàppee si wàllum dépense bi kii jàpp si wàllum courant bi kii jàpp si wàllum ndox mi kii jàpp si wàllum njàng gune yeeg yooyu noonu xam nga suñ doon jàppalante en bi dina wàññeeku waa dina oyof. si ku ne waye ben lepp ñu ñëw sëf ko ci kenn te was da nga gis ne comme tay taw yi yu nga xamne ne nañ ko fi dafa jafe de nga nekk di dimbale say rak pour ñu ne ci dara rak yoyu juk na wa man damay plan suma life nga dem be commencer yor tout sa mag bu nga xamne ne def sacrifice everything be ak sa wajuri be nga tollu position mm nga dem go koy xolé bët yu nga xamné moy so xam nga lolu amul amul njëriñ so en war di jappalanté suñ dimbalanté rek affaire ci dina dem ndax bu nekk ci li nga ne nga fexé ne dinaa fexe mo xam suma rakala suma jarbar la suma dëkkandoor la suma xarit la nga dal la nga mu lay nga fexé nga ne ki dina def ci mom dara ba mu doon dara koku tam su ko defee tam mu def ko ci kenen su yagge rek Eh, jafe-jafe bi dina wàññeeku bu baax a baax a baax incha allah mu nekk lu am solo ah, li nga xamante ni tey ah, Mouhamed boobu wax na ko waaye tamit rek ah, say kàddu yi nga xamante ni moom mujj si programme bi su ko defee rek ak li nga xamante ni tey moom ngay tàggatoo après nga joxal ma Babacar Senghor Euh, mu moom tamit mu sànni si li nga xamante ni tey moom mooy kàddoom ci li nga xamante ni moom moo war a nekk euh, li xamante ni tey moom moo war a génnee li nga xam mooy jafe-jafe réew mi waaye sa kàddu mujj si programme bi ak lan ngay tàggatoo. waaw xanaa de am mbégte kontaan rek. Mhm. si dalal bi ñi ngeen ñu may ñu dalal ñu fii tey si Baobab TV. nee mhm. na wax ne si kaw sa kanam rek. macha allah waaw lu gaay di wax. ilal amam rek ilal hmm. amam hunakal maram hmm. sa ko rek sa kanam baobab mom. waaw yan nuru turondo moy guuy hmm. nga guuy mom newna nga gis e, garab bu ko tim newna kon nu baobab guddee ah, te reuy te dëgër baobab tv mel ah inshallah, te ñu tagoto rek uh-huh. ben beyt cheikh ibrahim bu muy wax nan tafsiratul anam bi anal bi anal ilmu huwa al imam tere la daf ko talif Mawlana Cheikh Ibrahima mu ngi siy wax ne comme leeral gis-gis bi maa wax ne xam-xam mooy njiit soo nañ njàng moo xam métier la uh-huh. moo xam e, jàng la si école wala si daara wala school bu mu mënte ne mm-hmm. ndaw yi nañ gën a jàng mm-hmm. gën a gëstu mm-hmm. pour nangoo liggéey pour développer suñu réew nga xam ne keneen du jóge si biti ñëw développé ñu ko. Mm-hmm. ñun ñoo ñun ndaw ñu ñoo ko mën a développé. Mm-hmm. te suñ si jàppee incha allah. Mm-hmm. ñu dimbalante. raw dinañ raw incha allah. ñu am kontaan trop pour bokk ak eh, Babacar. plateforme bi. ak yow DJ Amzo ñu ngi laay jaajëfal di jaajëfal caméraman bi. incha allah ñu ngi am kontaan daal. si dalal bi. macha allah jaajëf ah, su ko defee rek nga joxal ma Babacar Senghor ah, mooy ki nga xamante ni tey. Euh, moom cin bokkër safin la euh, ndeysaan gis ngeen li nga xamante ni tey moom la leen mayoon euh, ci tàmbale ba waaye tamit ngeen gis programme bi nga xamante ni tey wax naa wax na fi waxi fasaa waaye mbow tamit su waxee tamit ngeen xam ne yarin rek am solo mu nekk loo xamante ni wax dëgg neex yàlla ku nekk rek mu ngi koy ñaan yàlla ci doomam mm, mm. waaye tamit ñu ngi wax ne Gambia ñu ngi wax ne àdduna ñu ngi wax ne fépp fi waaye mun munti toll di ñu seetaan na nga jàpp ci li nga xamante ni tey moom mooy yaru xale yi ndax euh, dafa jot pour ñu dellu xool li nga xamante ni tey moom la mag ñi daan yaree leget leget rek la doon. Hmm. ba mu doonee leget ba tey mostu soppaleku bool bool bool la super super la kon lu nekk dafa am tur lu nekk nen ko jox li nga xamante ni tey moom la moom. léegi Babacar euh, ñu ñëw rek ci li nga xamante ni tey moom moo war a saafaraal mbir yi nga xamante ni tey waxtu waxtaanee neen ko ak li nga xamante ni tey moom moo nekk sa kàddu yu mujj si programme bii nii. waaw di gërëm ak sant Baobab TV rek. macha allah eh, di leen di wax ne gàcce ngalaama waaye si liggéey bu rafet bii. Mm-hmm. you know eh, télé bu mag bi nga xam ne nii macha allah. Mm-hmm. Eh, fu mu yem rek doyut. macha allah dina ñaanal rek. liggéey bi tamit yàlla na jëm ca kanam ak kanam. di wax ne rek Baobab TV nekkewu fi dara lu dul. Mm-hmm. fësal dëgg bi. macha allah xam nga rek di développe Gambia si boppam. waaw. Euh, di gërëm ñëpp tamit. Mm-hmm. ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu. Mm-hmm. Euh, ñi nga xam ne may nañ ñu nopp. Mm-hmm. Euh, ñu xam ne ñun motuñu. luñ fi wax rek su baaxee. ñu xam ne si yàlla la jógee. si ñun xam nga suñ juumee tamit. ñu xam ne suñ xel a rek. macha allah waaw. waaye di wax ñëpp ne. Euh, waxtaan nag xëj na doorin bi la. Hmm. waaye amoon nañu yéene. Hmm. bu rëy rëy sax. Hmm. pour waxtaan loo xam ne ni euh, du am sax fu mu yem. macha allah ñoo Baobab TV you understand. Euh, leen wax na nag yoon yemul si benn. déedéet nañ na every every week. nañ leen bugg di indil. Baobab TV nañ leen bugg di indil. ay programme yi programme sax <laughs> di gërëm ñëpp. di nuyu ñëpp. fépp fu sa waay mun a ne rek. la wax ne. Pape Badou mu ngi laa nuyu. macha <laughs> man nag ama fi maker aman actor at the same uh-huh. time. Mm-hmm. Uh, di wax ne rek. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. awma dara lu dul Baobab TV. so gàcce ngaalaama Baobab TV. macha allah uh, mu nekk lu am solo li nga xamante ni tey Babacar tàggatoo na ko waaye tamit ndaw nga da ngay yëngu ci dara. Euh, euh, lenn rek euh, dinañ leen may opportunité bi pour képp koo xamante ni tey bëgg na jot ci li nga xamante ni tey moom ngeen di liggéey. waaw fan la leen jotee su ko defee ngeen joxe seen i contact ndax baobab dañ ko ubbi pour mu ëppoon pour lépp li nga xamante ni tey ndaw a nga ci. ndax soo waxee ndaw ñu ne leen bàyyi leen lii nekk leen ci lii dag leen di jox li nga xamante ni tey moom moo leen di jëmale kanam kon ci li nga xamante ni tey moom ngay yëngu. képp ku la ci bëgg a jot képp ku la ci bëgg a gis fan ak fan lay jaar ba mën la siy gis su ko defee tamit Mouhamed Mbow timit kasaalika ah, ah, naka Mohamed euh, loolu dina ma dina ma kontaan trop pour hmm. expliquer ko because man yàgg naa joytu fi may mun a waxee mhm. eh, suma boppa mhm. gannaaw tey yàlla def na Baobab TV mhm. ah ubbi na seen xool ubbi seen all arms woo ma fii pour wax man suma boppa pour ñeneen ci biti tamit dégg ma ñi baax ñi ñi baax ñi ni ngi bëri ba léegi macha allah waaw waaw so ñun ah, man man aman acto uh-huh. dama dee dama dee act drama ma mm-hmm. act ak movie tamit mm-hmm. because most most most of us mm-hmm. understand uñ like uh, comedy and movie also so loolu dafa divine dafa different so dama dee at movie and and also comedy Wow. But pare at the same time dama dee create content dama dee film dama dee um, edit so loolu yep, film maker moo ko moo moo comme film making daal moo boot loolu yëpp. Mm-hmm. Euh, lu bëri lañ soxla Mohamed. macha allah pour liggéey. Mm-hmm. tey suñ jafe-jafe sax si boppam. Mm-hmm. laa bëgg a explain tuuti. pour nit ñi seetaan ñu ñi nga xam ne mun nañ ñoo dimbale. pour ñu mun a pour ñu mun ñoo dimbale. Euh, am nañ ay problème yi caméras. Gambian si is time now ñi nga xam ne ñu ngi abroad. caméra caméra sometimes pour ñu jox leen some euh, some brief pour ñu understand caméra sometimes du dee seer. second hand cam caméras yi duy seer. nañ di indi du fridge télé o oh, whatever lañ war a indi second hand yi ak yooyu noonu nañ indil ay caméras. nañ ñu indil ay lights. nañ ñu indil ay boom mics. you understand we want to work. nañ ñu indil ay stuff yi niin du ma la du fridge du lifin yooyu noonu kese mooy ay second hand yu ñu war a indi fii pour jaay ko. ay caméras dañ ko nit pour liggéey. man mii man loolooy suma problème. Euh, ba pare tamit caractères yi dañu war di ëppnante hearts you know ñuy try di demalante suñ movies yi nañ invitante mm-hmm. yaa ngi understand pour suñ movie mu dem soo gisee tey you know uh, uh, yeneen dëkk yi seen movie yi di dem dañ dee ëpp dañ ëppnante mm-hmm. uh, naka story writers yi tamit mm-hmm. dañ war di jokalante ak you fi filmmakers yi caractères yi you understand nañ nañ nañ nañ buñ rus. macha allah buñ ragal. Mhm. nañ ñeme wante ñu ni neen rek. macha allah ba pare comme li ma wax ñi ñu ñu nekk abroad nañ ñu dimbale plus si ay caméras. Mhm. please nañ ñu dimbale su ñoo yónnee ay bagages yu sew yi caméra moo gën a gaaw a jar sax mhm. ay fridge yi ay télé yi nii so nañ ñu dimbale ngir yàlla <laughs> jaaraleel ndomo bi rek su ko defee so ah, yi am ko képp ko xamante ni bëgg na jàppale Babacar Senghor non as Pa Badou. waaw Paye Banjul bi nga xamante ni. moo gën a fële si àdduna Paye Banjul bi nga xamante ni lépp loo bëgg rek ah, mu daal la koy jox. kon jaaree leen ndomba man man man euh, suma production name bi mu ngi tudd Ndawi Gambia. ku hmm. dem euh, YouTube boo typee Ndawi Gambia rek di nga ma hmm. gis. Hmm. you know and then also su fekkee ne da nga ma bëgg a jot si suma dial mun nga ma koolee si 79. 68 047. 79. 68 047. 79 68 047. waaw rek ma am caméra Gambia dem kanam. <laughs> macha allah Gambia dem kanam mu ne. Euh, second hand nekkatut ay firij nekkatut ay ay ay ay daala bëri na fi torop indi leen caméra yi ñoom ñu jënd ko indi leen caméra yi ñoom ñu mën ciy liggéey di bégal askan bi Mouhamed Mbow. Euh, ci li ngay liggéey ak ci li ngay yëngu joxe sa contact ñu ñu ñu def ko muy hadiya macha allah. <laughs> macha allah waaw eh, ñun ku ñu xam rek. ñu xam ne si wàllum ñaw la yang yëngu kon dafa mel ni yaa sant sa bopp ah waaw ñoo doon jéem a loolu duñu boole macha allah ñoo doon jéem a takkaleen ni rek am nga nit moom si li ngay yëngu dafa wara a feeñ ku gis xam ma macha allah ki si xam nga rafetut ñu ne kii ñawkat la ñu gis mm-hmm. ko muy sol sagar ndeysaan waaw ah, rafetut so ñu mm-hmm. ngi o ñëpp képp mm-hmm. nga xam ne ñawi góor jigen african european bo si bëgg man ngaa ñëw place ba mu ngi nekk Kunku Jam Johnson foog nga juk waaw ngay xool li nga lug ah loolu <laughs> li nga xamante ni tey moom la sanse waaw waaye caméraman bi zumal ma ko rek wanal ma li nga xamante ni moom mooy askan bi ah, li nga xamante ni moom la mbow sol lum taar wooyu num li nga xamante ni tey moom la rafetee macha allah mu nekk am solo waaw lii de mbow yëli création lañ koy wax ah, waaw mbow yëli Mbow Yeli. Création. Mbow Yeli Création. waaw maanaam sant bi Création. waaw <laughs> parce que. Mbow Yeli. Uh-huh. ñu ngi ko jëlee si suñ maam mu ne jàng. Uh-huh. jàngale uh-huh. bay dundee. moo indi yëli gi. Eh. so si loolu lañ ne. moo tax moo ñu dugal si ñaw mi le mm-hmm. eh, ñun nag ñaw mi lañ am. Mhm. si loolu la ñuy yëngatu. macha allah xanaa ak daara yu ñuy dem. macha allah nga ñun moom mu gënee taalibe lañ. macha allah ma allah waaw ñu ngi sant suñu sëriñ nag di ko Ali Baba. Mhm. waaw di ko nuyu di ko ziar mu ngi bépp bisaaw di fa def mission bu am solo. macha allah sang Wilane Sané tamit ñu koy nuyu di ko ziar. di ko mhm. ñaanal yàlla fanu gudda wér gu yaram. parce que tey suñu demee am fit. di taxaw di wax eh, nit. bëgguñu gis ñu bëgguñu yaa am yaakaar si ñun mhm. parce que lu suñu waajur def si ñun la mhm. waaye tamit sëriñ bi daf si am rôle bu nga xam ne daf ko si pile rôle bu am solo mhm. waaw parce que ndaw da nga war a am kilifa duñ wax rek waaw Mboyeli Création nag mu ngi nekk Kunkujang waaw soo fa wàccee Kunkujang Johnson mooy si marché bi ndaw bi soo fa duggee soo laajtee Mohamed Mbow dinañ la ko wan waaw wala nga call si 252 13 13 252 13 13 o 511 7492 511 7492 nomba bi ku ñu si call rek mm-hmm. di nga ñu jot incha allah bépp façon ñaw boo bëgg rek mm-hmm. ñu pour Gambia jëm kanam mm-hmm. lañ mu ñu tax a jóg soo ñëwee incha allah dinañ si jàppalante awillah mu nekkul am solo kon gars yi wateef ga yegg na ci li nga xamante ni tey moom mooy ndong li ma dellu rek waxaat rek baat bi nga xamante ni saa su ne waxtu wu ne jamono ju ne bés bu ne àddu heure bu ne minute bu ne temps bu ne dañ koy faral di wax muy bu wëri wa demee këng waxi mag dem dañ tàlli lakk jëb ko ni mbag war mbaam li waaye doon jaay de lamb rek mbaamu leer saa yi jinne bëggee da xaar ku yëg daanu ah, tey nag gis ngeen li nga xamante ni tey moom mooy suñu jotaay bu yanj bi waaye tey tamit gis ngeen li nga xamante ni tey moom leen doon waxtaanee waaye gis ngeen li nga xamante ni tey moom mooy kàddu yi fasaa yi nga xamante ni tey ñoo ngi fi waaye gis ngeen li nga xamante ni tey moom la ndaw ñi doon def waaye gis ngeen li nga xamante ni tey moom moo fi am tey ci li nga xamante ni tey moom mooy suñu plateau kon gars yi ñu ngi leen di wax rek ne next week incha allahu rabi si yeneen i programme waaye si yeneen ni ñi nga xamante ni tey ñoom leen leen war a amal nee naa leen ne Baobab TV lépp li nga xamante ni tey jóg na rek pour développer réew waaye lépp li nga xamante ni jóg na pour dimbale li nga xamante ni moom mooy ndaw ñi waaye lépp li nga xamante ni tey jóg na pour dimbale ñi nga xamante ni tey ñoom ñooy jaamu yàlla yi waaye tamit bu kenn foog ne rek Ehm, yow sa du ñu fa ñëw maanaam ustaas bi ne xam ne moom dina ñëw fii tey toog waaye tamit ñëw kat bi comme ni ko mboo mii defee eh, dina ñëw kapinta bi ak ki nga xamante ni moom mooy maçon bi képp koo xamante ni rek ndaw nga képp koo xamante ni nit nga képp koo xamante ni doomu aadama bi nga xamante da ngay waxtaane li nga xamante ni eh, dafay dimbale ndaw ñi waaye dafay dimbale li nga xamante ni tey moom mooy réew rek eh, dinañ la am fi nga xamante ni tey moom mooy suñu plateforme waaye tamit tey damay woo ñi nga xamante ni tey bëgg naa tey ñu jàpp ci suñuy programme Ndiaye Thiarakh saa su nekk euh, dama koy wax. Euh, del jàpp ci li nga xamante ni tey moom mooy programme mu jëm Omzo maa ngi la ciy woo bu baax a baax Oumou Création maa ngi lay woo ci programme bi waaye tamit nag euh, ñi nga xamante ni tey ñoom ñooy suma sponsors du ma dem te owuma leen mooy ñi nga xamante ni tey mooy waaye njagaan gaz di gaz bi nga xamante ni mucc na ay trop waaye gaz bi nga xamante ni tey boo ko amee rek dégg li nga xamante ni tey moom mooy dëgg. gaz bi nga xamante ni boo koy toggee sa xol dina sedd gaz bi nga xamante ni tey boo ko yoree sa kër mooy save sa life gaz bi nga xamante ni tey boo ko amee ci sa waañ doo génn di tiit gaz bi nga xamante ni tey boo ko amee ci sa kër foo mëntu toog foo mëntu toll sa xel day dal waaye gaz bi nga xamante ni tey soo ko soxlee dalay yomb torop gas bi nga xamanteni boko soxle do juk di dem ba seni beurep ñom ñoo koy indil ba ci sa biir kër ci lu yomba yomba yomb kon kep ko xamanteni rek ah, bëgg na jot ñegan gaz mun na xol ci li nga xamanteni tay mom moy mooy scream bi ah, di neen fa def li nga xamanteni tay mom moy seni ndomba kon gaay babenen ba benen sondé insha allah rabbi ci seni programme ataya bi ataya bi nak ma ngi ci xaar ñep umu creation ma ngi lay wo ci programme bi Ndiaye Carax maa ngi lay woo ci programme bi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xamante ni tey euh, duñ mën a lim ñëpp seen tur waaye ñaar ñooñu saa su nekk rek dañuy topp Omzo saa su nekk rek dañuy naan Omzo xuusal te dina baax kon nag dama leen di woo ci programme bi nga xamante ni tey moom moo nekk ataaya bi kon jaa ngeen jëf ñi nga xamante ni tey ñoom laa dalaloon waaye jaa ngeen jëf àdduna jaa ngeen jëf ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon seetaan jërë ngeen jëf ba seen beneen programme di sonde incha allahu rabbi